yëkkati na coow tribune yéene kaay naan man sori yoon ak luy jeex ndax procureur la mu xuppoon ne dana jàpp képp koo xam ni taxee nga ca jàpp ji day ma nga mel ni tulleeg maale ca diwaanu Kaolack googee yéene kaay bi day média bi nan man tegal sa baaraam ma xamal la ni fukk ak benn ci doomu aadama jàpp nañ leen ci Kaolack ndangaan googee ñaar ñoo xam ne nee ñu ci mbir ma la ñu bokkoon daal dinañuy daw diggante Gambie Mali libération naan koon ka nga xam ne moo yoole wax fa ñu dencoon waajoo jee daal dinañ koy jàpp jàppit ka nga xam ni ba mbir ma amee dafa di bu vidéo di xupp président Macky Sall nañ ko waaye ki nga xam ni moo sabab mbir ma bokk ci këru diine moom ci boppam ma nga Gambie Interpol la ñu ko boolee turbine yéen kaay naan man ca diiwaanu Kaolack jàpp gi daal ma nga mel ni tulleeg la ci mbir mi yéen kaayub dee média bi naan man terewul ni collecte parrainage bi ma nga mel ni sabaru ñooñu ci gëm sa bopp xale yi bugaan gay dan yi ña nga rangoo seeni t-shirt yore seeni pancarte yore seeni woto yoo xam ne daanaka parrainage bi sax lañ ca daal di def di rungum rungum yi nag biir Sénégal yéen kaay bi naan man daanaka waa gëm sa bopp ñoo daal di attirer attention askan wi jëmale nag ci wàllu parrainage bi le témoin yéen kaay ne ko déet wax ji kay moom moo di gëm sa bopp moo nekk ci combaxtalu mbir mi ci opération de terrain yi nga xam ne mi ngi am ngir wàllu parrainage bi l'évidence yéen kaay naan kon xaw ma ku leen déedee waaye seen stratégie bi daal ma ngay fay dëgg gars yi dajale nañu ba marday taali ca diiwaanu Touba ñu ne déeta waaye Thiès moom ñu daal di koy ratissé te laataa lool diggante kii du góog fa nga xam ni moom la laloo waa gëm sa bopp dajale woon nañ fa daanaka ñaari téeméeri junni ciy parrainage ne nag moom gars yi nee ñu seen mbëbét moom moo di lu ëpp million ci parrainage yoo xam ne daañu ko dajaleel gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany yéen kaay bi ne lii kay jar na samp laaj ba tey lan moo tax nag équipe gëm sa bopp yi dong la ñuy gis ci terrain bi ci dajaleem parrainage bi lan moo xew lan moo tax nag collecte parrainage bi yitteel Bougane Gueye Dany waaye tam yitteel ak équipe am ne la watunu guddi ne la watunu bëccëg ña ngay rungum rungumi nag di wëri parrainage fuñ ko mënee amee te loolee ma ngay fay di def effet ndax seeni parrainage maar day sa kan na na am nañ yoor yoor naan maan waxtu woowu direction générale des daal di nay gëmb tëxlu ci li mu ne du jébbal Ousmane Sonko ay fiche am ne ko acca l'info yéen kaay ne moo taxit Alioune Tine daal di na yekk kete me cendee la faal des élections li mu def nii ware na ak PTM te koon warta jiite bërëb boobee xam nga Sénat mi nga xam ne mooy tëgg ne leen Ousmane Sonko moom jébbal leen ko ay fiche ngeen ni déedéet duñ ko ko jébbal ndax yoon nangu ko loolee nag wane na ni directeur bi mënta jiite DGE tribune yéen kaay ne ko ma la cendee la faal nee nañ na able waaye maître Sidiki Kaba nee nañ mënta jiite ay élection ci réew mi ndax na ñaar ñii élection yuñ tëgg élection la yoo xam ni day lu ne mën na caa am ndax Sénégal li ñu bëgg saa si tembe mooy élection yoo xam ne ñëpp ci bokk waaye tam bëgg nañ élection yoo xam ne day leer nañ werante daal du ca am l'enquête quotidien naan man en tout cas xëccoo bi diggante ministère de l'intérieur ak Ousmane Sonko tey la waalo gën ay aay l'observateur naan man ñàkk jox Ousmane Sonko ay ficham daal dinay andi ab débat ci réew mi le témoin yéene kaay naan kon en tout cas moom Sénat ci boppam DGE daf ne ko doxal foofu wi rax ci dolli nag nekkee ci résistance ba wal joojo njaay àlluntin ak expert électoral bii di njaga si laa nee ñu DGE nekkoo ci dëgg laas naan en tout cas DGE fa mu nekkoon jógu fa nee na Ousmane Sonko na duggaat ci liste électorale bi laataa ñu koy jébbal lenn le soleil yéen kaay naan man boobu président Macky Sall ma ngay lancé ay travaux zone économique spéciale la bëggal jas tribune yéen kaay naan man moom premier ministre Amadou Ba daal di nay dalloo forage boo xam ne fandan la daal di nekk moom Maguette seen maire bu Malicounda ñoo nekk ca fàndaan googee yéene kaayub dee média bi naan man gannaaw taaxum sincu daan pël yi nga xam ne amoon nañ ko 2018 fanweeri million ak juróom defar nañ ko municipalité bi nag moo def lépp fexe ba xëccaat ndox mi ci juróom fukk ak juróom ci million daanaka juróom ñeen fukki million ñu daal di koy def ngir tàqale Malicounda ak dëkk dëkkaan yi ci mar lu toll ci juróom juróomi téeméeri million ñu def ko ci SDE ngir falox wolof falox séeréer sali aérodrome sali médine Malicounda Carrefour Mbaling Warang ak Pointe Sarène yéene bi naan man ñu dalal fa premier ministre Amadou ba mu daal di dalloo forage boobee yéen a kaayib des média bi naan maan demal Île à Morphil ak Moussa Sow mi nga xam ne daanaka Abdoulaye Wade xamle woon na ko ci jamonoom moom président Macky Sall ñëw dippee ko Moussa Sow walal de moom mi jiite Puma président Macky Sall mën sukkandiku ci moom ci diiwaanu Podor ndax fukki forage ak jàppale waa Podor it Puma ma nga ca turbine a kaay naan maan waaye ak lu mën a am pôle bu communication bu gëm sa bopp nee ñu maître Sidiki Kaba ak Thiendella Fall moom nañ moom mënuñu koo def fii ci réewum Sénégal Le Soleil yéen i kaay naan maan président ma nga bëgg a jas Tribune yéen i kon Moussa Sarr njiital ETIR ma ngay woo Mouhamed Boun Abdallah Dionne ni ki noonu responsable ñu daal di del si seen xel ndax xam le ni coow li coow li mooy dogalu président Macky Sall lan war a sukkandiku waaye tam sukkandiku ci tabb gi nga xam ne tabbal na leen ko Amadou Ba ngir mën a jàll daal di wéyal nag plan Sénégal émergent goo xam ne mën na suqali Sénégal à tout moment Le Soleil yéen i kaay naan maan Sénégal ci boppam téeméeri milliards daal dina koy ak BIDC talaata ji lañ ko xaatim ca Lomé ñetti convention bu financement yoo xam ne war na soxal ñu daal di prolonger TER bi ba aéroport international Blaise Diagne war a soxal ñu daal di yeesalaat Diamniadio waaye itam VDN 3 bi ñu daal di koy talal ba Ndar Géej ministre de l'économie du plan ak coopération bii di Doudou Ka Le Soleil naan maan moo xaatim lu ni mel liggéey ba war a door daataat diggante Tiwaawoon Mexe ci autoroute à péage bi waaye tam diggante Dakar Tiwaawoon Saint-Louis ci VDN bi boobu Vox di ma xamal gi leer na Sénégal góor ñi ci boppam ñoo ëpp jigéen ñi lu ëpp fukki million ak juróom-ñett ñoo am ci doomu aadama fii ci réewum Sénégal waaye lu ëpp xaaj ba léegi ay góor lañu te li ëpp ci askan wi ñi ngi diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel Mbàkke moom léegi mooy département bi nga xam ni moo ëpp ñu ko dëkkee yéenekaay bi naan man am na ñoo xam ni moom nee ñu recensé wuñ leen te tàmbali na nañoo ñaxtu daar daar di xam le ni recensement gi am na lu ca taqee 24 heures yéenekaay naan man Papito Kara faatu na ci géej gi ngir bëgg a dem Espagne turbine yéenekaay naan kon laaj bi jara samp moom moo diggante maître Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall ay alternance yoo xam ne ay soppi la sénégalais yi nag defoon ko ngir ëllëg gu ñoŋ ngir yaakaar goo xam ne daal dinay am loole lan la soppi ci dunduk sénégalais yi yaakaar gaa ngi fi ba tey wala yànqeeku na sénégalais yi ndax gis nañ seen bopp ci alternance yooyee sénégalais yi ndax lañ leen digoon boobaak léegi ña ngi cey teg seen i gën ndax sénégal ñoŋ na soppeeku na ci anam wi gën ndax ñoom ndaw ñi ci boppam nga xam ne xam le nañ ne fii ci sénégal bi diggante fukk ak juróom ñeent juróom la muy réew ndaw yaa ëpp mag yi ndax ndaw yoo yooyee ñu ngi gis seen bopp ci réew mi ndax ndaw ñoo ñee mën nañ si gi xool seeni waajur tey te naan leen jafe-jafe bu ngeen nekk mën nañ koo saafara ndaw yi lan la ñaari alternance yi soppi seeni dund laaj bi samp na ma xamal leen ni ba tey ne góor ñi nee ñoo ëpp jigéen ñi kon lay jeex nag leena ko doon laaj ak sina eau minérale saalix ndox la mu neex te wóor rax ci dolli sell na te woyof toll ak bouteillam bu weex bii am classe néexatee boole ci ak présentable booy berndeel nga am ay gan baa ngay def sport moo ca wóor ndax ferñeent yamu am au minérale saalix am na qualité ak bu bouteille bu 1 litre 500 am na 19 litres bu fonten am na te li ci gën a neex mooy fu ay moroomam di leen jox 300 millilitres moom mu jox leen fa 400 millilitres fu leen ay moromam di jox 10 litres mu jox leen fa 12 litres du saaleex moo wóor kon saalix eau minéral la bu njëkk bu bawoo ci Touba ci ndigalu Serigne Saalixu Mbàkke borom jamono moo tax mën ngeen ko am fépp ci réew mi wala ngeen dem ci sunu ay makkaan ñu ngi nekk ci Touba Dakar Thiès ak jurbel baa sax ngeen woo ñu ci 78 151 05 05 wala 77 136 91 91 eau minérale saalix mooy ndox mi neex sell te woyof toll